Saourou seen ñu ngi lay nuyu. mais maa ngi leen di fay. yow yaay secrétaire général national euh, bu SAEMS bokkit euh, ci g ñu ngi nekk nag ci njeexintalu atum euh, kon année scolaire bi. ndax mhm. examen baccalauréat bi door na sax ni ki démb baccalauréat technique ci examen boobu sax ban jàngat nga ñu ci mën a dox ndax lépp a ngi jaar ci yoon. waaw wax ni rek effectivement comme ni nga ko waxee école mu ngi waaj a tëj te comme ni nga ko xamee à chaque fois que école waaj a mooy moment wu examen yi ba tax na instant yi euh, xale yi nga xam ne ñoom ñoo war a def le baccalauréat technique ñoom ñu ngi ci li ñu jàpp rek mooy d'abord ñaanal leen yàlla mu jox leen ay résultats yu baax wante aussi wax quand même il faudrait que en tout cas ñun sur le terrain dégguñu ay poids yoo xam ne am na ci baccalauréat technique bi ñu ñaan encadrement bi continuer pour que mu bañ a am benn poids ci baccalauréat technique bi. Mhm. waaw euh, ci examen yi la ñuy ba tey ndaxte euh, baccalauréat général bi ñu ngi koy xaarandi ci njeexteelu weer wi BFM bi nag war a am ci juróom-ñeenti fan ci weeru août bi ñu dëgmal euh, ndax fi ak boobu da nga jàpp ni candidat ci examen yëpp mën nañoo jeexal seeni programme waaw wax ne rek li Sénégalais yëpp xam moom mooy année bii ñu nekk deux mille vingt deux mille vingt et un amul benn yëngu-yëngal boo xam ne noté nañ ko dans le secteur éducatif loolu nag ma précipité pour wax ko du parce que gouvernement au Sénégal moo liggéey li tax loolu déedéet parce que tout simplement euh, jàngalekat yi ñoom ñoo gis ni comme dañ nekkoon ci situation pandémie mais jarul ñuy yëkkati yenn yi wante nag li gouvernement bi xam mooy waroon na mën profiter occasion quand même convoquer des rencontres du moni sur le monitoring des accords loolu kenn defu ko alors pour ñëwaat nag ci examen yooyu nga wax mais baccalauréat bi euh, lu ñuy lu ñuy xaar euh, état wu Sénégal mooy que d'abord il faut faudrait que bac boobu balaa muy yegg si ñi nga xam ne dañ war a am euh, avance pour mën a dem ci mission yooyu mais avance yooyu ñu teel ko joxe ba pare aussi nañu sécuriser les examens parce que ñu ngi ko doon wax sànq gis nañ ni fan yii violence yi bëri na ci l'école yi mais il faudrait que durant la période des examens ñu def tout pour que benn violence bañ am fenn beneen élément bi nga xam ne soxal nañu trop ci examen yi mooy brevet de fin d'études moyennes bi muy BFEM bi li ñu gis mooy xamuñu ndax nguuru Sénégal dafa bëgg a def ay économie ci examen bi wala parce que Euh, professeur yi nga xam ne dañu nekk ci benn département mais nguur gi dafay def tout ministère de l'éducation pour que ñu maintenir leen ci seen biir département ñu corriger foofu alors que loolu bu amee mais le risque ñu taseeg seen i propre élèves dafay am li ñuy xaar ci gouvernement au Sénégal mooy que examen BFEM bi bu jotee na jàngalekat yi nekk Dakar quitté Dakar dem Rufisque ñu nekkoon Rufisque quitté Rufisque dem ñaa dem Diamniadio ñu nekkoon Diamniadio quitté Diamniadio Diamniadio lay ñëw Dakar buñ ko defee mais ku nekk dem ci beneen zone loolu mooy jox BFM bi crédibilité te noonu la mos doxee kon nag comprendre ñu pourquoi on veut coûte que coûte communaliser le BFM te là le ministère de l'éducation nationale est interpellé. Hmm. Euh, ci examen yooyu lañuy ñuy desandi sax ndax euh, négandi daaw gis nañu kon euh, ci année scolaire bi wala boog ci examen yooyu ñu am résultat yu mucc ayib nga xamante ne gëjoon na am sax ci Sénégal loolu jaaxaloon na ñu bari ndax ren mën nañoo xaarandi tamit résultat yu tan wala yu yamambaay waaw xam nga daaw waxoon nañ ko. li xewoon daaw xewul ren kon résultat yu ñu amoon daaw bon yaakaaruma ñu am ko ren pour dire vrai hmm. daaw li amoon mooy un formidable élan de solidarité ak candidat yi dañ ni na élèves yi yëpp toog seen kër ba mu des candidat yi ñoom ñooy xëy di dem école te ñu ne classe bu nekk ñaar fukki ndongo ñoo fay nekk professeur yi yëpp di leen encadrer kon kañ solidarité boobu mosul am école. Hmm. comme mosul am école nag école daal bi am résultat yu bu mosul am waaye solidarité boobu amul ren dañ dellu système traditionnel. Hmm. boo xam ne ñëppay ñëw école professeur bi ñëpp lay jàngale te classe bi moom bu yeggee juróom fukk sax am nga chance. dafay nekk ba soixante voire soixante dix ou quatre vingt donc résultat yooyu ñu amoon daaw bu ñu yaakaaree am ko ren te alors que lu ñu defoon daaw defuñu ko ren mais loolu dañuy nax suñu bopp mënul nekk encore que quand c'est pas que dama bëgg ay résultats yu bon wala ma yéene que xale yi bañ a réussir déedéet wax de mbir bu yegsee dañ koy analyser correctement gis ni quand même ça me surprendrait ñu am résultat yi ñu amoon daaw. Mhm. Euh, examen nag ku ko wax mooy ay sujets ñuy proposé ndax yenn say day faral di addu ci actualité te ñu ñëpp xam ni ren ji actualité bi mooy coowal LGBT wala bokk wàllu góor jigéen tey gis nañu juróon na coow lu rëy ci Rufisque ak ci examen blanc bi nga xamante ne sujet bi ñu mel la ñu fa proposé ndax sujet yooyu mën nañ koo xaarandi ci examen bi wala ci an anam lañu ñu mën a jaar. damay fàttali encore école moo nekk gardienne de nos valeurs. Mhm. école lépp loo xam ne dëppoowul ak suñuy aada dëppoowul ak suñu cosaan dëppoowul ak suñu diine mënuñu ko nangu. Hmm. loolu moo tax ma jàpp ni sujet yi ñuy mën a proposer dafa mën a nekk sujet yoo xam ne dafa bokk ci programme scolaire bi nga xam ne dañ koy jàngale li xewoon Rufisque évoqué nga ko wande lu ma porté gan rappeler quand même que nit ñi ñoo ko yëgul mais 2012 épreuve boobu ñuy wax nii mais joxe woon nañ ko foofu Rufisque 2012 amul woon coow boobu xëj na parce parce que tout simplement ni technologie avancée tey communication bi bëri noonu xëj na melul woon noonu 2012 wante nag ñun ñëpp ñoo war a veiller à ce que épreuve yi ñuy joxe mu nekk ay épreuve yuy évaluer lu ñuy jàngale parce que c'est ça aussi l'évaluation on évalue ce qu'on a enseigné hmm. loolu des trucs de de lesbienne ou d'homosexualité loolu figuré wul fenn suñu programme scolaire te ku yaakaar ni loolu ñun mën nañu bàyyi mu jàll ci suñuy école da nax sa bopp nguur ak keneen ci yem duñ ko nangu duñ ko parce que loolu dafa ak suñu ngëm-ngëm correspondrul ak suñu diine kon kenn mënuñu xaar ci yu mel noonu. Hmm. ngeen sóobu nag euh, déjà ci ay examen ndax bac technique bi ni mu ko waxee door na yeneen i kon épreuve yi ñu ngay ñëw euh, euh, ndax yéen ñi defoon kon correction yi. at bi wees euh, jot ngeen seen ndàmpaay yëpp ndax bor du am rak niñ koy waxee. ah pour dire vrai nag am na ñoo xam ne ci ñun wande bëriwuñu. Hmm. ay benn benn ñoo xam ne jotu ñu seen ndàmpaay parce que man lii tey rek ce matin am na kenn ku ma woo doon moo wax loolu amoon na ay cas yu bëri ci région wu Matam yoo xam ne quand même woon nañ ma ko wante biñ ma ko signalé ma jël contact ak directrice su euh, directrice su DAGE ministère de de l' enseignement supérieur wax dëgg réglé woon na ko ci nu mu gën wante nag gis naa ba léegi am na ay yenn yenn cas yoo xam ne ba léegi kenn fayu leen ma jàpp ni système payoor bi il faut ñu xoolaat ko gën ko rendre fluide te li nga xam ne chaque année nga def ko bu dee chaque année nga am les mêmes dafay mel nii dafay am teyeef bu ci nekk moo tax ma jàpp ni ci examen yooyu il faudrait que ñu xoolaat globalement le mode de paiement pour quoi que yooyu nga xam ne dañ koy constater ñu mën ko dépasser. Saourou hmm. ah, Saourou ñuy dégg nag lu bëri ah, ay syndicalistes di addu ah, ci li nga xamante moo jëm ci projet de loi bi ñu soppar ñi ci assemblée nationale te mu juróon lool coow ngeen ci am taxawaay yéen tamit waa sa lan la ci syndicat jàngalekat di wër ci loi bi xeex terroriste. très bien xam nga Sénégal aussi dafa nekk dëkk boo xam ne dafay faral bëri coow. Mhm. te coow li en général lu koy indi du lenn lu dul ay politiciens. politiciens yi moom dama koy wax mu leer il porte un lourd préjudice au Sénégal et aux Sénégalais. Mhm. ça loolu mooy sama conviction. parce que damay jàpp lenn rek nekkuma assemblée nationale. mais damay jàpp ni projet de loi balaa muy yegg plénière normalement damay dafay am une lecture en tout cas un travail bi nga xam ne dañ koy def au niveau de la commission des lois mm-hmm. mais commission boobu buñ ci nekkee xam ne lii ñuy waaj a togg du lu baax mais qu'est-ce qui empêché ci moment boobu mais sénégalais yëpp jot ci loolu je crois que ñi coow tey même opposition biñ ci waxee dama jàppoon ni balaa koy togg bu ñu gisee ni lii mooy waaj a xeeñ il faudrait que ñu daal di alerter les sénégalais ñu wax ci beneen élément bi Sénégal mais bu dee aussi que projet de loi bi lenn visé wu ko lu dul xeex terrorisme mais loolu kenn moo nanguwul ñu xeex terrorisme Sénégal amul lu tax mënuñu partager largement avec les Sénégalais sur ce projet là pour que ku nekk xam li projet bi wund mu bañ a indi coow bu inutile donc je crois qu'il y a toutes ces questions là autant du pouvoir que de l'opposition moi je considère que les acteurs politiques sénégalais mais ne méritaient pas quand même d'être à la tête d'un pays aussi responsable, aussi aimé, aussi historiquement quand même démocratique que celui que nous avons aujourd'hui loolu moo tax ma jàpp ni eh, c'est dommage loolu c'était une parenthèse beneen élément bi nag mooy ñun en tant qu'organisation syndicale mais lépp loo xam ne dañ jàpp ni mun na porter préjudice aux libertés fondamentales aux droits de l'homme mais loolu dañ ciy taxaw bu baax a quel que soit mais projet de loi bi li mu indi comme modification lenn loo xam ne moom kenn mënu ko modifier ci ñun mooy que ñu am le droit d'exercer librement mais notre pratique syndicale damay fàttali rek Sénégal dafa ratifier ay convention maa ngi doon fàttali la C87 ak la C98 de l'OIT rappeler de la constitution du Sénégal sans fàtte aussi la loi 6133 portant statut euh, général de la fonction publique donc yooyu daf di yoo xam ne ñun mën exercer le droit syndical wante nag bu ñu kenn wax suba parce que vous avez manifesté ceci s'est passé maintenant vous êtes des criminels ou ça on ne l'acceptera pas parce que une plus les libertés fondamentales de notre pays mais demeurent intactes te projet de loi boobu mënul changer lenn lenn ci suñu comportement en tant que responsable syndicaux. Hmm. ñu jeexalee ko ak poñ bi nga xamante ne xëy na euh, ci wàllub xayma année scolaire bi lay doon ndax liñ ci nemmeeku euh, gullet sax wala bokk euh, bu fekkante ne am na gaawut xeetu fitna gi ñuy teg ci ay jàngalekat te ay ndongo di ko def ban jàngat ngeen ci am en tant que syndicaliste ak naka ngeen ko fas yéenee xeex. d'abord rëccu loolu bu baax a baax. parce que école nekkul lieu de violence école lieu jàng la njàng ak njàngale moom la ñu xam ci école loolu lañuy xaar ci école li ñu gën a métti gën ko naqarlu condamné ko vigoureusement mooy que ay élèves yoo xam ne dañuy dóor violenter seeni professeur loolu moom xel mënu ko nangu loolu moo tax ñu jàpp ni li nga xam ne mooy conseil de discipline yu am école yi il faut ñu gën leen renforcer pour que ñu gën a mën a jël décision parce que li wér te mooy conseil de euh, euh, comment dirais-je de discipline boobu mais mënul dàq élève dafa mën a proposer rek qui décide nag c'est l'inspecteur d'académie or inspecteur d'académie fekkewul xamul mbir mi nu mu tëddee kon dafay am solo nu xool naka la ñuy renforcer les conseils de discipline pour que élève bu def la mu warul def mais ñu mën ko sanctionner le plus rapidement possible et de la façon la plus exemplaire maintenant ci mbiru violence yooyu il faut nag ñu xool responsabilité yi élèves yi am nañ ci responsabilité parce que ñoom ñuy violente ñoom ñoom ñoo koy def te ñoom nag du ñu ay xale yu ndaw li la dalee quatrième troisième ba terminal ay ay gros gaillard lañ kon ñooñu lu ñu def ñoo ko tey beneen responsabilité bi mooy responsabilité familiale gis nga xale bu jóge ci kër na fàttaliku moom ambassadeur waa seen waa kër lañ lépp lu mu def ci biti dafay mel ni parce que éducation boobu la recevoir ci famille am moo tax muy comporté wu noonu ci biti loolu moo tax aussi il faudrait que famille yi xoolaat seen yarin parce que école nekkatul foo xam ne dañ fay yare école dafa nekk foo xam ne xam-xam kese lañ fay joxe kon famille yi il faut ñu jëlaat yar ci seeni doom pour que fu ñu génn mën leen représenter foofu dignement jàngalekat yi aussi far naam wante nag dëgg bu waxee jotee ñu wax ko. Hmm. il faudrait que ñoom tamit ñenn ñi ci ñoom xoolaat seen i comportement vis-à-vis des élèves parce que wax naa ko sànq. bukki bu yafee yabee waxumaane mais ci doxin wi la il faudrait que ñun ñu xoolaat nos rapports avec nos élèves pour que rapports yooyu nekk des rapports responsables des rapports pédagogiques dernier élément bi mooy gouvernement au Sénégal bi nga xam ne moo amee la sécurité des personnes et des biens. Hmm. mais il faudrait que ñu sécuriser aussi ces agents parce que mënuñu nangu ay professeurs ñu leen di agressé école te kenn waxul dara kenn deful dara loolu il faut que il faudrait que gouvernement bi jël ci aussi ay matuwaay. Hmm. yow yaay secrétaire général national bu SAEMS bokkit ci G7 sëñ bi Saourou Sagne ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. mais maa ngi leen di gërëm di leen sant ci ni ngeen ma jox opportunité ma partagé ak Sénégalais ci question yi nga xam ne question d' actualité lañ euh, di leen jaajëfal encore une fois de plus. en tout cas merci beaucoup monsieur Sène. mais c'est moi qui vous remercie.